ñoo booloo man su ma jógee samay mbokk lébu di bëree Ramadan waa parcelle ñëpp laay àndal ñoo ñoom ñoom laay àndal dëgg la fa laay kon xam nga na loolu enul maanaa dëgg la combat boobu nag laa fa jógee dem ñibbi samay mbokk loolu kese la a père max moom ñaawul quoi dëgg ikiri ba tamit waa parcelle max moom tamit ñaawul lolo xam nga lolo tamit enul mana wa ki lim wax yenn na wa mm. parce que day bañ ay adversaire am manqué mm. té ñee dañ ko dam té dafa war am revanche fofu ci bir euh, bir parcel mm. kon c'est normal mu jógee parcel dem yof pour mëna ñëwaat bir parcel ndax xaliss xaliss euh, kon tay ji manam euh, bi ma fa nekké mm-hmm. bi may bëre raam wa parcel la andal xam nga lolo enul mana wa parcel manam ñom la andal quoi waaw xam naa mm-hmm. tax ma jóge fa deug la saal euh, Zal Bambey mi loolu nar ci moom. non saal suñu combat day neex. loolu moom da koy neexal xeex ba wala bëre ba. dañuy eh, xeex dañuy bëre. laa lay wax. Zal. Mm-hmm. waaye ñeneen di nga xeex di xam na day xeex dañuy bëre moo tax mu xam lool combat bi maanaam. Mm-hmm. bëgguma ji lu yomb gaaw. xalaatoo ko ci. xalaatoo ma ko ci sax xeex bëre. dana war di xeex di bëre man ak moom di wuure ci biir wëree. waaw di ci profité waat. di ñaanal waajuróom yooyu ak boole booy doon fi jóge di ñaanal sama yaay yàlla yërëm ko sama papa yàgg fi torop waaw di ko ziar bu baax di ko wax ne bëgg xeex bañ xeex dañuy xeex dañuy bëre mën a moom <laughs> loolu bi tu la final daal parce que combat bi combat li la parce que Pape Sarr moom instant yi moom war a neexal bés bi lan mooy combat na ma koy ma li moom combat bi mënoo ma ji linjaa bu ma la linjaawul doo ma linjaawul leer la combat bi combat mbayaar yi la Paptine Sandika dafa teg. xaalis bu bëri non ñoo ko andi mbayaar. mais Paptine wax la ko Paptine nee la chaque jour Paptine Sandika. chaque jour chaque jour mën na ku ko xam ku xam Ousmane Tine xam ne mbayaarkat yëpp Ousmane Tine mooy seen papa. chaque jour man nag maa ngi maa ngi nuyu waa Yoff. Hmm. ñoom caatu di nga ba ci wax. dab Ousmane Tine xam nga la ay waaw bu ci combat bi mbaar ñoo ko andi si làmb ji fii dama bëgg mu tey bu bu wax sa affaire mbaar mbaar ñooy kàppooy mbaar yu mag yi fii moom li ma wax xam na ko bu baax. mais yooyu li ma lay wax xam nga ko de mbaarkat yi dëgg xam nañ kan mooy Ousmane Tine. te man ji damay teg. nee ma dafa teg xaalisam bu bëri. làmb ji man damay teg. loo teg ma teg lu ko ëpp. dama lay duma dama lay daan. nga ni moo bëggee toj suñu réer dama lay duma dama lay daan loo teg ma teg lu ko ëpp. zaa manoo maa daan. maa la dàq bëri fuuf amoo bëri bu ma daan. barke man ak yow ku dàq bëri yàlla may ndam. loolu nga jël yow sax yow Mohamed man ak yow ci weeru koor wi ku dàq bëre maa yow yàlla ko suñu borom ah, weeru koor bi yow ku ku dàq bëre man ak yow yàlla ko yàlla may ndam si combat bi yàlla ko yàlla ku gën a sonn ku gën ñu ku dàq bëre man ak yow maa maa la dàq bëre ba di la wër waaye Zal yow ñi la xam-xam ma xam na ne man maa la dàq Zal foo mënee bëre foo mënee bëre ku mënul bëre doo daan jël ñu koy dugal top 5 man top man infra top 5 laa du ñaar nit top 5. déedéet koo ku mën a bëre doo dugal nit bu daan nit ñu wax. kii jéem kii du bëree ay mbër. dama bëgg du. non yaa oui mais yaa yu zaal de yaa yu zaal de ci làmb war nga ma ko sax. zaal zaal zaal déglu ma rek déglu ma boo dellusee ci làmb war nga ma ko de. dañ la de. dañ la de. yow ku ah bëree Evra Rouge kan mo bëree France. man yow da nga xam yéen leen boole. bëree hmm. bëree France ku daan. moma daan. ma ay France maa moom baa tax tontu la. ya ko daan lol deug la mais man dama lay daan. ya ko daan mais man dama lay daan deug lu mo rek ya ko daan mais man dama lay daan. dama ko jàngal bëre yow ko toog sa Mama Lamine sar xam ay fira daan ay konaar ak Pape Konaté nga ne ma yow daanoo ay mbeur ah, bul champion nga daan moom bul soxor. non non ay daan la daan. ay champion nga daan barke la victoire ci lam waaw da nga appui combat. maa la noonu la demee. maa la combat maa la victoire. non ma appui victoire. yow ñaari victoire nga man maa la victoire ñi ma daan daanoo leen. yow ñoo daan. yow benn mbër bu siiw nga daan benn mbër bu siiw. <laughs> benn mbër te léegi Modou Modou jëlee muy Evra Rousse. ban benn mbër bu siiw. Evra Rousse nga daan. xanaa seetaanoo arena tour bi. kan kan nga yow xamoo ma yow da nga ma xamul. xam naa la bu baax. seetaan naa la yaa Evra Rousse toog naa yaag ram daan bi mu lay daan maa ngi lay seetaan xamoo ma yow déglu ba rek bi la beleen di daan maa ngi lay seetaan bi ngay daan Moussa Balla Gaye maa ngi lay seetaan non seetaan bu baax non kii dama koy xamal bi ngay daan Moussa Balla Gaye maa ngi lay tëgg esaan ko ko de gis da neex nga yàlla dañu dimbali mm. bool bool mm. ñun écrit Yoff mosu ñoo daan loolu yàlla dimbali bool bool da leen jik c'est faux barka dem moo jaay la barka saal mu dagg foofu noonu waaw maanaam boy puy fan la nekk booy puy bawal. man walaay booy puy man booy puy moom. fàttali bu kon ah. génneel ci loolu. Ah, benn boobu génneel ci loolu bu wax benn boobu. da ngeen daan rek. booy puy bawal bawal nekk daan na gin bu yof yoo gin yof la wax da ngeen ñu ëpp lu ngeen ñu daan te fii lay dakkee. dama lay duma dama lay daan barke démb moo jaay la bàyyi daan chaque jour ñu daan chaque saison ñu daan leen bii bool bool moo neex a bëre. <laughs> que dañoo a wax. nga gën bi nag. bii ci lay jeexee. bool bool moo neex a bëre. yow lu tax mu neex a bëre lay dakkee. Ah. kii xam na ne manuma daan sax. wallaahi yow du ma toog sax di la bàyyi xel parce que xam naa ne benn lenn rek nga ma ëppale ci làmb gën ma pataa. Ah, maa la gën doole maa la dàq bëre maa la dàq xeex. te baar bi suuf lee naa la duma ba nga xam ne maa la daax xeex. waaw baax a bëre yow. baax na. bawol bawol bi ngay waxat de. man dama bëgg nga xam loolu rek. dama bëgg nga bàyyi loolu xel mënuma daan man lébu laa de sawaay bala ñu leen dalal Ndakaaru fii da ngay teey bala vee loolu moom loolu moom weddiwuñu ko sawaay waaw mais bala vee ah bala vee rek la vee maa du combat de man li ma lay wax chaque chaque waxtaan rek hmm. chaque jour maa lay gërëm sant gërëm maa lay gërëm bi la sant voilà parce que gars yi dañ la fàtte woon yan gars yi ñoo fàtte gars yi dañ la fàtte woon gars yi ma ragal gars lamb loolu ngeen di jël teg ko fële ay gaay dañ ma ragal moo tax ma gëj a bëre loolu ngeen di jël teg ko fële gaaw ragalu ñu la de bool hmm. ay wax rek la yo mag baa nga foofu gaaw ragalu ñu te bu dem vingt samedi la vingt nga xam ne gaaw ragalu ñu la ma fii yow wax sa sarax seerul trois cent cinquante la yow sa bu cent quinze nga naa la ñetti booy laa dajale ku ne jooma vingt hmm. sa sarax seen sarax yaa soo fukki dërëm soo ma jëm juróom kan ku nekk xam sa saraxu morom waaw ah. soo fukki dërëm suugar juróom ma duma la daan la te bool bool googu muy wax nii man maa ngi fa ëppale. loo ko fa ëppale. waaw <laughs> jëlal maa nuyu sama mbokki jabar yi. <laughs> jëlal bu baax. waa xombal. jëlal bu baax. <laughs> yow jigéen nga waaj de. non déggoo. ki daal baax ba nga am xombal jabar. Eh. si biiram laa ne. kon déwélu ma la wax. jëlal. bawol moom amoo fa dara. yow fi ngay ndamoo sax man maa la fa ay supporter ay tubaab jalaaw boobu ngay wax. tubaab jalaaw boo xam ne da nga fa amee supporter da ngay wax lu la neex rek. wallaahi wallaahi boo ko waatee lakka. gis ba buufu def kàccili paaki. ñëw jam ñaajo dem Sébikotane ba cinquante. xam na ne saa bu baax. rek dama ko. Eh, kii kenn xamu ko waay waay dugg na sa garde. kii kenn xamu ko da ngaa neex. waay ñu commencé waay ñu commencé ngay xam ne maa la dàq bëre maa la. daal baa mbay max moom du combat. daana ba la vingt. kii max moom du combat. <laughs> kon loo koy jëlee wax kon loo koy jëlee. mais man mais man man Sall Sall question bi ma amit yow ci yow ci yow la quoi. Mhm. Euh, maa yaa ngi xalaat. kii du at kii du at bu soufflé. sifflé kii ñi arbitre ñi arbitre su leen mayu leen jàmm sax. di day yooru may ñàkk may jàmm ngeen du gis ku. ah la du gis ku. booy taalal ku français de. man anglais laa la ku ci kanam gi de. du ma sax nga billaay du ma français damay bu suba. Ah, man français a bañ da ngay ñëw. man mayaar laa. yow kay français nga naan la yow doo gis ku. waaye nga naan français. doo de. man xam nga bu baax. sa bu kuy joge da ngay nuuru. kan moy nuuru moom li wax ni limi wax limi def ni yeb mom waaw wax yeb mo koy def. la veille soriwut sunu karam la. da nga xam li la. ah bo ñëwee ku ba lay xam man te limi gëna jaaxal moy man limi la mëna xamal moy bëgg bëré bañ bëré da ngay. xeex doo ko bëre loolu dugg na bi lu leer laa lay xamal. combat bi dama la bëgg a xamal la. teg jeexal la sama béykat bi laa teg. billaah yow. fi ba ginaaw suba fu ma la jàppale ma lay daan. dig ma jàppale te do daan maa la daax a bëre maa la gën a neexi ree maa la daax a xeex maa la gën doole pata rek nga ma gën a def pata. pata waaw bu ñu sumee bu ñu bu jour waaw bu ñu sumee ko ndax damaa pata la pata ma. pata kese nga ma gën a def. maa la mën de. ndax koor gi kan moo fi mën a pata. maa la mën fuuf. <laughs> maa la pata. loolu laa bëgg nga xam est-ce que woor ngeen. kan ah man maa woor man maa ngi ñun lébu yow xam nga ne lébu daa daa bëgg koor. Mm-hmm. ñun lébu yi ñun dañu yara si koor. Mm-hmm. ñun bool bool la. moja bi moo bëre bi passé moo kii moo kéwél mm. koor la woon kéwél woorul wóorul làmb lii bi yëpp. bi mu ñëwee moo ja da ko du duma daan. lan moo ñun su taal daa wóor bay bëgg a dee. yaa koy daan. kéwél bàyyi faa la de. loolu moom ajiwul ci côté boobu. non dama lay wax rek dañuy woor dañuy man maa ngi woor. te man ñaanuma yàlla sax weeru koor ñëw may am ngant lu may. non loolu moom loolu moom bëgg ko def sa bopp dama lay daan. loolu laa bëgg nga bàyyi ko xel bu baax. mais Zalmi daa décidé de. kii bàyyi ko fi kii day théâtre. Ah, moom français bi muy wax nii moom mooy français. donc français bu manga na nga daan français. doo mais bébé Ibrahima sa dernier combat bii passé lan la lu bari. Mhm. lu baree baree baree baree. xam naa lépp. Mhm. maa ngi sa sant yàlla nag merci